CPI te sept mois lañ fi def gis ngeen ne dëkk bi lépp tàmbali na sooxe fan yi baaxul dund gi seer na courant bi seer na lépp seer na actuellement ci sept mois kese kon ñuy suufee dañ ne teel xanaa ni dañuy yem foofu di yalwaat yi kon nag ñu ngi leen seen mobilisation bi di leen wax ne le 17 novembre bi nga xam ne ci lañ jëm muy na ngeen teel a xëy teel a fayaw sol seen yére rafet bu leen xeex bu leen ngeen dem voteel liste bi nga xam ne mooy la liste sàmm sa kàddu bi nga xam ne le président Abdou euh, Macky Sall mi ngi ci le président Abdoulaye mi ngi ak tous les ténors n'est-ce pas la politique kon yaakaar naa ne bëgg réew mi ak bëgg maanaam li nga xamante ne nii moom la fi wax mooy génn fi nga xam ne ñoo fi nekk loolu moo tax kenn ku nekk fàtte sa bopp ñu def intercoalition bu mag bi kaar nga xam ne yaakaar naa ne su fekkente ne jàppe nañ bu ñuy ñu ñëpp su soobee yàlla dinañ gagné kon nag su fekkente ne le 17 ñëw na yéen ñëpp na ngeen voté liste bi muy liste bi nga xam ne Barthélémy Diaz moom moo ci nekk. président Barthélémy Dias nekk maire de Dakar mooy liste sàmm sa kàddu moom la Thiès département di war a voté su ko defee nga am député yoo xam ne yu am valeur leen assemblée toogal leen fa dinañ doon seen ay naxar te kenn mënu a kenn tamit mënu leen a quand même di ko romb kon je ji gudd gàtt mooy su dimanche jotee ñun ngeen dem voté li nga xam ne mooy la liste sàmm sa kàddu su ko defee opposition bi gagné ñu mën a contrôler le le pouvoir ñëpp tamit nekk ci jàmm je pense que loolu mooy li nga xam ne moo fi nekk. damay mujjee nag li may ngeen baal ma mooy euh, gis ngeen fi ñoo xam ne dañu fi dox fii ci Thiès di wax ne président Abdoulaye Wade moo leen yónni wala moom la ñu gëm yore ay carte yoo xam ne dañ leen di nax le président Abdoulaye Wade li mu wax ak Karim Meïssa Wade

si beneen liste ne du ma nekk jamais face avec le président Macky Sall ndax kóllëre mais également ndax li mu woote mooy sauver le Sénégal tey ñu ñëw fii à Thiès woote fii intercoalition intercoalition ak président Mame Diop dinaa la xamal ni liggéey bi rafet na tous les partis politiques les organisations sociales les associations ñëpp booloo na nekk benn ba lépp rafet na donc tey man loolu daf ma rassuré ndaxte ñi nga xamante ni ñoom leen investir fii jiital si la tête de liste départementale Moustapha Mbaye bu PUR ak sunu sœur Hélène bu takku wàllu ak sunu frère Mor Diouf bu PDS ñu ngi nuyu waa PDS bu baax ak seen forte mobilisation bi ñu def ñëw tey ak sunu sœur Astou Cissé donc ñoom ñëpp tey Astou Cissé di un jeune très dynamique très engagé mais nag ngi féliciter di remercier sunu frère le président Abdou Mbow moom mi nga xamante ni dañ ko investir ci donc le travail a été collégial boole leen suñuy force boole leen suñ doole ngir wax ak askan wi wax ak Ceesuwaay yi li gën a am solo mooy le message a été bien entendu parce que Thiès intercoalition lañ fi def et liste bi ñu war a voter mooy la liste de Sàmm Sa Kàddu dirigée par le président Barthélémy Diaz loolu nag jàpp naa ni samay militant samay sympathisant Thiessois maa ngi leen di wax ngeen gën a amaat taxawaay xam ni réew mi nag toll na foo xamante ni sàmm sa kàddu dafay jafe wante nag toll na foo xamante ni dañ ko war a wallu loolu moo tax dimina homme d'état homme politique ku si mel ni le président Abdoulaye ku si mel ni le président Macky Sall ku si mel ni le président Idrissa Seck ku si mel nii yeneen parti politique yi nga xamante ni suñu sëriñ Moustapha Sy moo ko jiite di parti PUR di Bougane Gueye Dany di le président Khalifa Sall ñoo taxaw pour apporter une solution aux préoccupations des Sénégalais ndax xam na ni économie bi nërmeelu na xam na ni sunu réew mi jafe-jafe yi si dund bi am na ndaw ñi liñ leen digoon defuñu ko parce que dama jàpp ni réew boo ci nekkee da ngay promouvoir l'emploi des jeunes mais nga ñëw ndaw ñi lañu amoon as néew ngay wàññi seen liggéey donc moo tax je profite pour lancer un message à la jeunesse surtout la jeunesse thiessoise ne leen seen seen xarit seen soppe Ablaye Dièye yàgg na leen a taxaw yàgg na leen a jàppale sur le plan social sur le plan de l'éducation sur le plan du sport mais également jàppale leen ci emploi donc jeunesse bi yeewu leen bu kenn naxati il faut rectifier le tir et rectifier le tir c'est voter massivement le 17 novembre la liste Sàmm Sa Kàddu pour que sunu quatre investis mën a jàll ñu jël bi jox président ki nga ni tey moom la ñu wax honoré muy son excellence le président Macky Sall bi nga xamante ni bu neexoon mu toog ne Sénégal la ma waroon def def naa ko mais bëgg Sénégal gëm Sénégal moo tax son excellence Macky Sall ñëwaat bàyyi léppam pour jiite la liste takku wàllu Sénégal donc ñu ngi féliciter encore notre frère du PDS Mor Diouf mais également remercier sama naataango yi nga xamante ni ñooy ànd ak man monsieur le maire Pape Diop. maa ngi koy féliciter bu baax si engagement am si taxawaayam remercier